lu ci mel ni Soko Balde lu ci mel ni Pokola Balde lu ci mel ni Ziza lu ci mel ni Jara 2 lu ci mel ni Lan 2000 lu ci mel ni Tyson 2 lu ci mel ni Naari Joto lu ci mel ni ay Boy Baye Sall lu ci mel ni ay dund bu 37 fu comprendre lu ci mel ni Boy Abdou Gueye man samay rakk ñoo ma ñor te ñoom ma tax a jug moo tax ma taxawal pur 100 pour cent Pikine pur 100 pour cent Pikine bu ma taxawal pour coach yi la ak mbëri ndaw yi mm. te mbëri ndaw yi wuy si nañ ma ci ndax parce que démb am na benn joogo je jeego bu ñu def muy open press Ndiaga Thiam gis nga ni fa demee gis nga fa mm. Boy Niang mm. gis nga fa Sokh gis nga fa Malick Ndiaye gis nga fa euh, l'an 2000 gis nga fa euh, waaye booy bi waay tudd naa turam léegi léegi léegi waay waay ñu fa nekkoon daal bëri na. Mm-hmm. ndax parce que mënu ma tudd seen tur mais loolu rek du ànd doon benn. ok man li ma woote ànd doon benn mooy lan. damaa wata pire cent pour cent bu jëm ñun ñëpp nañu ànd du contagondoo suñu biir ñun ñëpp nañu ànd entraînement suñu biir kii Boy Niang la amul kii Sokh la amul kii Eumeu Sène la amul kii Ama Baldé la amul kii Pokola la amul kii Sokh Baldé la amul kii Ziza la amul kii Jara 2 la amul kii Lan 2000 la amul kii Valdo la comprends pas ñun ñëpp dama bëgg man lii ma woote ak lu ma bëgg Pikine mel ko loolu mooy dëgg te loolu nag bu ma demee ba ñu fekkee si ma si ngay gis Pikine di ànd di entraînement seen biir ngay gis Pikine di ànd du contact seen biir nga xamante ne Pikine ànd nañ doon benn. ok kon keroog li euh, li Boy ñaa def ba tey des na. lu Boy Niang def dëgg lu rafet la def mhm. waxuma la deful lu rafet. lu rafet la def si diggante mook Ama Baldé. wala dégg nga fa may dégg naa li nga wax mais dama bu defee loolu da ko war a def. ok ci diggante moom Ama Baldé. wala ko renfant yow mais man damaa woote pire cent pour cent Pikine ànd doon benn. lu paase paase suñu ginnaaw nañ ibbi pôle mbalit jël ko dugal ko ci ub ko te fàtte ko pire cent Pikine pire cent pour cent bii ma taxaw. ñu ànd bokk ndey bokku baay. di ànd entraînement ñu ne bu doon dëgg la Ama Baldé Boy Niang dinañ jàppante di contact. bu doon dëgg la. comprendre nga Eumeu Sène ak Sokh dinañ dinañ jàppante du du contact bu dee boo doon bu doonoon dëgg la Jacob Baldé ak Eumeu Sène dinañ jàppante du du contact bu doonoon dëgg la. Pokola ak presse dina leen ànd di contact man loolu laa taxawal. ok pour ñun ñëpp ñu ànd doon benn. ok bokku ndey bokku baay. Mhm. voilà. ok kon tey euh, ngeen war a jëm fi nga xamante ne moo di arène nationale. waaw di bëreeg Alboury. waaw Jacob. di bëreeg combat. bi nga xamante ne tey defe naa ni mooy yoonam ci làmb. tey bu daanee Alboury am mhm. fan la ko làmb war a mën a jëba. déggoo li ma a wax Alboury. mus na daanu la mus na daanu tey mooy première defetam ñam doon bëreel ak Jacob Baldé CP2 wala déggoo ma dañoo yaakaar ne moo ëpp doole ko ci kanam tuuti rek dana leer waaw ndax euh, favori yi bi presque ñëpp Albouri lañ ko jox waaw lañ ko jox xam nga ne loolu dafa neex man Malick Ndiaye ma am combat ñu jël favoris bi yëpp jox ko jox ko ci mbër bu may bëreel kooku boo ko daanee day am lu lay def man loolu ñuy communiqué sax man loolu laa bëgg mais tey jël dama ñëw fii démb ñëw naa fee waajal Pape Thiam comme sama rakk champion la doomu Pikine la dama bëgg Pikine bi yëpp jàppale ko booy Pape Thiam booy booy booy Ndiaga Diop damaa juum Ndiaga Diop mhm. comprends ba yow na ko Pikine génn teg ko loxo Sokho Baldé na Pikine génn teg ko loxo comprends Pokola na Pikine génn teg ko dama bëgg waa Pikine yëpp na ñëw jàppale mbër yi comprends ba yow man nag dinaa def le tout problème bu am pikin dinaa sol sama dàll dox ko di ko ñaw mais man du ma defee ah, du ma waxal kenn lu ñaaw du ma waxal kenn loo xamante ne nekk yow li may wax nekkut si yow ba pare may retourné di ko wax ci yow képp ku ma wax ci moom rek nangam ak nangam jàppal ne kooku loolu moo nekk ci moom. moo tax ma wax ak moom. voilà kon tey Malick euh, Ndiaye 37 fu. waaw euh, tey dafa ndi pure 100 euh, pour cent Pikine. pure 100 pour cent Pikine. Pikine amul 200 pour cent. baa leen di wax 200 pour cent. ok pour ñun ñii di wax 200 pour cent. déedéet dama bëgg yéen bu bu fekkoon am na Pikine ñuy ànd di contact suñu biir. ok 200 pour cent bu fekkoon am na Pikine ñun waa écurie Pikine yëpp ñuy ànd di entraînement suñu biir pourquoi loolu amul pourquoi loolu amul. Mhm. loolu amul. pourquoi 200 pour cent nekk fi tey mënuñu ànd entraînement suñu biir. kon tey Malick Ndiaye 37 fu li muy ñaan mooy ñu xëy bés Ama Baldé gis booy Niang ci wetam gis Eumeu Sène ñu bokk ci benn géew di contact ànd ak. ànd di entraînement. fekk boobaa ma ne Pikine waaw mooy loolu. mooy Pire ok. man Pire 100 pour cent bi loolu laa woote. ok itam rek laa woote ah. ok wootewu ma ay wootewu ma dara. dégg lu ma la alaaji mbay ñu ngi lay ziar képp ku ma waxoon lu ñaaw alaaji alaaji ñu ngi lay ziar walaay ñëw <laughs> <laughs> ndeysaan walaay lépp jàmm walaay yéen nag yéen ñu sonal parce que yéen fekk nit sax toog ndeysaan ngeen naan ko pikin pikin pikin lépp jàmm mu wallaay da ngeen di wax Pikine lépp jàpp mi yéen da ngeen di invité du ñu laaj pour ñu wax ñu leneen déedéet si jàpp Malick Ndiaye bii nii waaw dafa toj mbapat fii Pikine si yaa ngi dégg angle boo romb fii bëri na fi wallaay yaa ngi dégg nekk champion bu mag wallaay comprendre nga mhm. Pikine ñëpp ñu ngi si jàmm mhm. dëgg la mais ma seen mooy Boy Niang mhm. Boy Niang mooy Ama Ama mooy Malick Ndiaye Malick Ndiaye mooy Aladji Mbaye Aladji Mbaye mooy Ziza Ziza mooy Sox Sox mooy Zakob Pi mooy Pa Jowaay mooy Sonko Sonko mooy Jowaay <laughs> mi ngi noonu Malick defe naa ni wax ji am na solo. dëgg la gaan man lu ma wootee jàmm laa woote Pikine. ndeysaan man jàmm laa woote Pikine. ma nangul fekk si fekk lu ma. Mm. képp ku nangul fekk si fekk si ma si lu ma woo lu ma woote nii. Mm. jàpp naa man yow bëggoo Pikine defaru. man dama leen woo ne leen ñu kaa leen ñu bokk ndey bokk baay. dama leen woo ne leen kaa leen ñuy contact suñu biir. dama leen woo ne leen kaa leen ñuy ànd entraînement suñu biir. amul mbër bu ndaw amul mbër mag mag. loolu laa wootee jërëjëf jërëjëf man daal ah, ngi leen di sant yi laa njëkk a lamb du yëfu bandi. Uh-huh. lamb yëfu noobal la. Uh-huh. doomu noobal yi ñoo ko doon def. Uh-huh. ku bayoon tool ñu bëgg a xool kan moo gën a suur. kan moo gën a jox doomam mu suur kooku dañuy lamb bu ñu lambee ki daan jël champion ñoo gis nañ fi Diofior ak arrondissement ñoo bokk ndey ak baay bëri nañ ba final. moo indi way wi ah Diofior arrondissement. moo indi way woowu merci ba finaal kii maamam yor ko kii baayam yor ko ñu ne Abdou Diouf yow sama ngay bëreel mu ne ko déet man sama kër maam laa yóbbu mu ngi ko baayam la yóbbu ñu bëree bër kii kenn daanu ñu lëngante ak yooyu kon loolu lamb lay wane kon Pikine nite ñu wax uh-huh. lamb bu ñu ko jëlee dëkkal ko Pikine uh-huh. indi ko Pikine uh-huh. am tax ndaxte fa balde bande di bàyyi ama balde kooku foo demee Doussou Ba moo ko fi indi. ndeysaan. yóbbu ko fële ca ca ca école neuf. école neuf. wala ñu ko ci après ci la su fii. pour raison de sécurité. Mm-hmm. ndaxte boobu ànd nag ay ay ay ay ponkal yoo xamante ne c'est des meurtriers de guerre. Mm-hmm. ñoom Falaye alet waaw ñoom alet ñoom Sadio ay 2 mètres 0 mm-hmm. wallaahi ay nit ñoo xamante ne fu ñu taxaw ne la noppil nga noppi. mais dégg naa sunu maam Falaye bëri na 130 combats. bon man mënu ma wax ne cent trente wala man cent quinze combat laa kii maanaam moom dong mooy mbër bu ñu laaj Falaye kay nga daanul mun a xanaa ku ma bërelu keneen dootu ko bàkku xanaa ama ah? ama da bu daanoon guy gi daan nees uh-huh. mën na koo bàkku macha allah nees nag moom bu doon bu doon bërëngu sax di di di ponkal bay toj uh-huh. il faut ama bërëngu uh-huh. parce que loolu moo koy may woy bi bàyyi ma koo bërelul mu a xa ko koo daanu kan mu nga daanul ki làmb gi mu ne ku ma ko kon nag làmb la Jacob yàlla na ko yàlla may ndam ragal Pédé day xañ a wërsëg. Mm-hmm. Jacob du nekk sama doom donc doomu Papa Balde. Mm-hmm. Papa Balde sama sama loxo la daan. ndeysaan. Jacob maaka ngénte Kumba maaka ngénte lu Papa Gur maaka ngénte ñu nekk école xuru ñoom booy ñu mu tuuti bi football ak. Mm-hmm. fàttali naa turam ak keneen kii. Euh, Papa yëpp julo ak doomu Souleymane yëpp. fii benn kër la. macha allah kër gi Falla ñëpp la bokkoon njaboot. fu ko neexoon tëdd fu ko nag waaw fii la doon fanaan ci benn. kon nag lamb la may ñaax nit ñi. zéro violence xale yi boo leen amee ñëw leen boo leen amul ñëw leen lamb daj man nag maa ngi ñaan ndam bu sedd gu yàlla defal ko sama doom ci barki ahadu àll nii xaal nii bil masaaya ci barki waaw man man man xam nga kii boo ko conseillé yaa ngi indi problème lan fa fekk daal na ko bëre parce que entraîné nañ ko jàngal nañ ko xeex jàngal nañ ko génn ma koy conseillé nag Pape Diop nee na mm. xel gu métti ak dawar góor wóorloo bu métti waa ko xam fa nga jëm daal ko gën. waaw xam yoon bi moo ko gën. Mhm. mais tey muy bële ku ko long large ko. waaw kooku combat bu doon man combat rapproché lay bëri. dinaa ñëw teg a mètre. parce que bu nit bu la jegee kuwam du saf. mais bu la soree bu nekkee à demi distance bu la dóor day saf. kon tey Jacob warta sori Jacob. dafa war a ñëw taxaw arme ku ak nu mu mënta demee bu ñëwee na indi ñam. ñamante amu saf sap. Mhm. mu taxaw arrière. Mhm. bu kuu man xam nga bu ma ko mën na bañ a nii mais naa ko conseillé def nga léwatoo bàyyam da doon léwatoo mais ki léwatoo bi la lay ñand bu la ñandee fii buñ ko laalee da ngay daw génn maa daw song bu boobaa bu ñëwee ak nu mu mënut toll Jacob entraîné na yaa ngi wax bëre waaw déedéet mbokk fii la ko woon ni lamb Pikine am naa benn ne maa ngi Diouf Pikine la ama moo ko seeroon dix mille la mhm. ko mbot mu effacé Pikine Dakar men waaye bu fa lay balde daan nga Pikine Dakar yow ci Pikine Dakar men moom day am doon mbot ci digg Pikine bu ñu confirmé ko mu ma la bay ma gege dëgën la kenn dagal rëy ma jaraw ma gëra tëgal ma daan waagu ñay eh gun gun ndox lay wax gun gun ndak sama tànk bii gun gun dal lu ko dalee ndar Dakar jël jóob ma ne benn defet laa mën a wax muy béy daa ngeen daaru daaru salaam maa ko tëj a maa ko tëj ma ne mbafatu faas maa ko tëj bala moo ko tëj Souleymane Baldé ko Papa Baldé ko tëj ma ne carré géej tey dana ko tëj keroog mu tolle ni mu toll ñu daan mbër yëpp Souleymane da ko mu ne ko yaa ëpp yaa yaa woo yaa ëpp guy ñu ñëpp daanu nañu te mu jóg daan waa ji daan na ci daan kon da kon dem leen nag jàmm waaye nag il faut ngeen laal falaay nee na da ngeen naan da ngeen naan lëbës lëbës ngeen di wax lëbës tey leen lëbës mandal baas mandal baas mandal baas salikum baas matar ulda da gaaro gaar balde gaar amay teer lu fi waay indi bu ñëwee teer ma lambay ya nga lambay falay balde nee sa gun gun gu mu ne kam ngeen pël bi kam na nu ma tudd. ibu pël kam na nu ma tudd. rëbës ngeen di wax rëbës. rëbës ne ibu kam na nu ma tudd. rëbës ibu sengoor kam na nu ma tudd. rëbës dudu kam na nu ma tudd. rëbës caw mbaaw kam na nu ma tudd. rëbës ngaaroo gaar. rëbës maadib gaar. rëbës puus. mandal baas. rëbës. talikum baas. rëbës. makarul daadaa. gaar. rëbës. maadib gaar. papaay gaar. rëbës. mooy gaar. mën na gëmëraay per. gaar. rëbës. Pathé Baldé gaar. rëbës. Demba mooy gaar. Jacob lu koy tere nu nekk gar kon gar lambaye nga lambaye biram ndumbe maa jege dëgën la kanda nga la maa jara way maa jara dëgal ma lu ma rere ci fanaan ko ci fanaan ko ci ay maa jara lu silip ëmb junte ca rey ndawal te ginte te gungu ndax. te gungu ndax. te gungu ndax rek ma ndax sama tëj. dawal ginte. ginte. ginte. ginte. Alay Balde. ginte. Sil Balde. ginte. Faata Balde. ginte. Kumba Balde. ginte. Kajatu Balde. ginte. Babacar Balde. ginte. Sakom Balde. ginte. Sil Balde. ginte. Ama Balde. ginte. Paata Balde. ginte. Pokola. Demba Balde Malick Ndiaye Tafa Ama ah waaw ginte ko la rek waaw waaw ndeysaan la ilaha illallah ey Dudu Dudu Pikine neex na ma nga noonu ndeysaan